ministre de l'intérieur mi xam ne moo yore wàllu diine gi di Aly Ndiaye ak membre gouvernement bi yëpp mais wax ne dañu ko sant ñu taxaw ci seen i mbir pour que vraiment euh, lépp loo xam ne soxla ngeen ko si si si si si si màggal gi te mu war a jóge si administration ñu mun taxaw ko jàppale leen si euh, laaj nañ service bu nekk lan nga mun si liñ la laaj mu wax ko jàpp nak donc ku nekk li des moom jël nga ko engagement pour mën ko réaliser bu ñu yeggee si màggal gi ba xam waxtu bilan bu joté wax dëgg yàlla dinañ am bilan bu baax pour li concerne administration mais di ñaan yalla rek vraiment buñ ñu si yeggee boobu waxtu bilan ñëpp mëna am satisfaction parce que li ñu doon xaar ci magal gi yëpp am nañ ko. dañuy génn ci CRD bi waxuma bég waaye gën a bég gën a bégaat bu baax a baax a baax xam naa bu fekkoon am na benn baatu olof bu koy buy ëpp doole jërëjëf. parce que kon xalif bi dina ko wax waaye en tout cas daal bëgg nañ lool ci taxawaayu kilifa yi ci taxawaayu sous-préfet taxawaayu suñu kilifa bi nekk suñu wet le préfet du département Makan Beng nga xam ne li ñuy wax un grand commis de l'État lui c'est un grand commis de l'État donc moo tax tey bi ñu fi jógee vraiment am nañ mbégte mu rëy ci wàccaay bi nga xam ne moom la ñuy amal mu di 61e édition di màggalu Gadeyelle di màggal boo xam ne bu yàgg la ndax biñ ko dalee def léegi boobu indépendance du Sénégal amagul njabootu Darmanko di ko wootee ci kilifteefu xalif général des Mourides waaye bu amee tamit kilifa diine yi nekk ci biir réew yëpp ñëw daje fa état bi ñëw daje fa jaadu na kon buñ tollee fii ñu seet si kilifa yi nga xam ne ñoom la yàlla dénk administration bi waxtaan ak ñoom ñu xool li nga xam ne mooy suñu jafe-jafe ñu teg ko ci. waaye comme disait l'autre dafa mel ne tey mënoon nañu bañ a ñëw ñun parce que dafa mel ne administration bi ñoo doon waxtaan ak chef de service yi ñu ñuy toog di xool. loolu nag yàlla def na ci tawfeex moo tax génn nañ ci ak mbégte mu rëy rëy rëy di ci sant yàlla di ci sant kilifa yi ñu àndaloon ci liggéey bi yëpp. tawat ji gën a mag yaakaar naa mooy mooy tali bi journaliste yi sax xam nañ ko gouverneur xam na ko le préfet xam ko xam naa donte ñu la ko sax waaye tey mbégte mi ñu ci am mooy au moins AGEROUTE jël na engagement ne dina ko niveler ba nga xam ne taalibe yi ak mbokk yeeg xarit yi wëllëre yi ñëw ci màggal gi yëpp dinañ si mën a jaar ci jàmm ak salaam dem ak ñëw dem ci jàmm dellusiwaat ci jàmm je pense que loolu mooy mbégte mi nga xamee ne bi mu amee kii di xalif bi di sëñ Moutala am na ci satisfaction bu baax a baax te feeñal na ko feeñ na ci xarkanam loolu nag ñu ngi ñaan yàlla yàlla mottali ko di ñaanal kilifa yi nga xam ne ñoo doon liggéey ci loolu muy suñu kilifa administration yi nga xam ne ñoom ñooy suñu président de la République ci région bi yàlla may leen tawféex ba yooyu yëpp mu mën a sottee ci seen kanam. màggal bi at yu mujj yi dañ xewal di def ay thèmes muy ay jataayu xam-xam yoo nga xam ne yamatuñu rek ci berneel nit ñi ci euh, niñ koy waxee ndawal ak boisson yu demee noonu waaye ñu leen di berneel également ci xam moo tax waxtaanee woon nañ soufisme vecteur de paix et de développement mu nekk rempart bi nga xam ne mën na xeex li nga xam ne mooy terrorisme mais cette année nag ñu indi patrimoine du Sénégal foi et vérité pas-pas bi lañ bëgg a waxtaanee parce que boo xoolee euh, nga jël exemple bu mel ne Touba euh, bi murid yi bëggee defar jumaa ji ñoom ñoo defal seen bopp raay bi loolu pas-pas la woon pas-pas bi ñu am ba def lu mel ne Masalikul Jinaan est-ce bi a ne rek day toog ci ruxam ñu koy ziare a ne dafa ci développement wu